الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا بي لي ما ولبت قلت ñi sa sama bokki taali bi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg weesu Sëriñ Tuubaa sunu gannaaw bakkan amuñu lenn lu ñuy daariloo mën caa teg baaraam ndigalu Sëriñ Tuuba bala maa waxtaan ak yéen dafa am luy jëkk damaa bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ni bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na li yàlla fàttaliku nanu yàlla nag bu fàttalikoo ba noppi la ngay fa la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yow ma hisaadihi wala tusrifoo nawet moom xam ngeen ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ren yàlla may nanu ko kon nag nan tàmmoonteeg li yàlla santaane def ko góor leen ci asaka yi def ko nan ko na ngeen ko war a defee na sell te li ci desi ngeen bañ koo yàq ndax yàq kat yàlla tere na ko waaye li ma koy tere tere da cee dolli ne buggul ku koy def loo xam ne nag yàlla da koo tere ba noppi bañ ku bañ ku koy def mu bañ la loolu daal ku ne war na ko wattandiku wattandiku leenu yàq nawet bi mu ngeen ko jëriñoo ci ni ko yàlla santaane génne ak yàlla ji li ci ngeen téye ko te bañ ko yàq danga barkeel ci seen loxo te amaana yàlla bu dee tee def da leen di gën loolu laa jëkk bëggoon a jëkk a waxtaan ak yéen ginnaaw bu ma leen santee nag ci jóg ji ngeen jóg yéen ñëpp bàyyi seen yite ñëw fii ngir bisu Sëriñ Tuubaa bi kenn ku ci nekk la nga mën nga def aussi loolu mun na lu may sant leen ci yéen ñëpp nag te nag ci waxtaan léegi damaa bëgg mu wóor leen bu leen dégg ñu ko alxuraan di wax ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi ba tax ngeen defe ne ab yonent rek tax mu di ko wax ab yonent nabiyul mursal moo di ab yonent te kooku rasulullah ci mujj waaye nag mursal moom bu si dul seen saa ngir képp koo xam boo dee wax ñëpp ne tekk julli déglu morsal nga ci ñu ngay waxal ñu yónni ñu ci ñu ngay yàllante nag nga xam ko bay wax loo xam ne njëriñal àllaaxira dina ci jóge njëriñal addina di ci jóge njër addina ak àllaaxira dañu fee bokk ne lu ci ne am yàlla lu am lu ci yàlla santaane wabtaxi fii maa aataaka llaahu daara laaxirata loolu la suñu borom wax loo am sàkku ca sa kër <laughs> sa kër àllaaxira wala xam sa ma nasiibaka mina dunya surtout ci àdduna bu ko fàtte kon nag kuy wax ku nit war leen wax lu leen di jëriñ ci àllaaxira war leen leen di jëriñ ci àdduna kon nag ma leeral leen ni leen doomu adama yi ñuy bari bari yu jëkk yi ak yu mujj yi ak ñu ñeneen ñuy xale bi ci ñëpp yowmal xiyaamati kenn ku ci ne da nga wéet yàlla ba mu defe ba defee ne yow dong la sàkk loolu yàllaa ko wax wa kulluhum wa aati yowmal xiyaamati fardan wax nay ginnaaw da ngeen ku ne dana dikk fi moom nag ku ne nag la nga indi aale lam la ca war a defal ak lam la war a def wax na ko te def defal ak def dañoo niroo waaye bokkuñu innahu man yaati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya ku dem ci sa borom te yóbbaale fa ak tooñ jahannama rek la la yóbbu wa man yaati si mu'minan qad amila salihati koo xam ne yóbbaale nga fa ak jëm ak jëf yiw fa walaayka lahum darajatun ola rek la leen di defal daraja yi gën a kawe kon nag nun murit suñu gëm yàlla ak suñu jëf jiw lépp dellu na ci sëriñ Touba la la wéeru na leen wóor jëng ni sëñ Touba la nu jaayanteel sëñ Touba la nu topp sëñ Touba mi nu topp nag ku topp ku topp ci moom si yonent bi nga topp danaa joxe li ko waral ku ku ku jaayante moom it yonent bi nga jaayanteel te ku jaayante yonent bi yàlla nga jaayanteel inna lisini yu bàyyi noona ka innama yu bàyyi noona allaha man ittini rasula faqad ataa allaha kon nag diggante Serigne Touba ak yonent laa bëgg noo xel diggam ak yonent bi defut loo xam ne da koo da koo compter lu mu xëyee rek la ngir moom bi mu amee ab taw moom la ko tuddee muy Serigne mu Moustapha bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy Serigne Fallou bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy Serigne Mamadou Lamine bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy Serigne Mamadou Bassirou koo xam ne koo jur tuddee ko kon wóor na la jëng na keneen amul ci yow objet loolu kenn natt lu dox na ko lépp doora wëlbatiku nag moom ci boppam moom Serigne Bamba Sall la tuddan Momadou Bamba Sall lañ ko doon wax ci ndawam ak daana ko bind sax ak di bind Momadou Sall mu koy ci ama wasa ci wax ne mayetuma kenn ku ma waxati Momadou Bamba bisa naka tey sama diggante yàlla wasat bi bi kaw ni xaama abdallahi xadima abdillahi ya ilahi yàlla seeral loo naa ne la bisum tey def naa sama jëmm ak sama tuub muy jaamu yàlla doom boo xam ne bi nag day liggéeyal jaamu yàlla bu mag bi jaamu yàlla bu mag bi tax nga wax fa awha ila abdihi ma awha tax nga naa subhaana la si asra bi abdihi réew muy rasulullahi loolu rasulullahi di koo xam ne ku ñëpp di liggéeyal la ndax yàlla dafa fa mboolem li am njëriñ teg ko ci loxoom kenn ku ne am loo mënta ñàkk ci moom di ko wut kon naka jekk ji si ko liggéeyal ma si ko ma si su ko noppee xëyee la ko gontal ndax ku ne am na loo mënta ñàkk te mu yor ko te ci moom dong nga ko mën a jël waaye moom nag mu wax ne bëgg ci yonente bi lenn taxutoon mu di ko liggéeyal ñaan ko lenn taxutoon mu di ko liggéeyal lenn lu mënta ñàkk sax mu doon ko liggéeyal it amul dahaani li ixlaami nabi ubbusaati yi dahaani ilaamati nabi ubbusaati yi liggéeyal jëm ko liggéeyal ak tëj yoon koy tëj yëpp bëgg jëm ji rek la dara doolu bi loolu yëreel na ko ndax bind na ne mahab mahabati yal muxtaar sayiduna kubbil maxaani wal ahlina wal walada dammi la ahli wa awlaadi sida uloo xarban qadiman law mustanadi sanada loolu ko ku bind deseeloo kooka len kon seene ci yonent kon di dama yonent bi nattar li wunu ku ko jàpp rasulullahi nga jàpp ku jàpp rasulullahi yàlla nga jàpp ma xamal leen nag ne leen murit ci boppam nag moom moo abul aw tur la loolu na leen leer murit aw tur la sëñ mooy jëmm ji tur wane jëmm lay wut lay woor koo xam ne bi nga ko jàppagul doo tudd murit boo ko bàyyee doo too tudd murit bu ñu la dee wax murit moo tax loolu benn natt bi nag mu leer leen leen li mu jëflante taalib yi lu leen war a leer la lu leen war a xam la dafa wax ne moom day sam mbooloo tofal ko nit li muy def ci nit mbooloo topp ko bu ko defan ci garab nit ñi dëkk wër ko te duñ fa jóg li muy def ci nit toppees ko itam def ko julli ñaari raaka moo ko ko gën a jafe kooku kon mel na ne tam doon liggéeyal dëpp na euh, dëpp na ko kàttan te loolu li ciy firnde moo di ci àddina moo ko sanc ndax moo joxee moo jox kooku suuf ne ko foo bëgg mu ko ñii dañoo far bi fas ko yónnee xet la ko ñi nga xam ne ñii seen xalaat yëgul foofa ñu fab ko suuf ci seen bénc am na ñoo xam ne suuf sam leen jox dañ koo denc ne dañu bëgg dee yóbbaale ko waaye benn murid bu dëkk fenn bu ko digalam delul foofa amul kenn ku topp kenn nit koo xam ne du sëñ Tuubaa tax mu topp ko amul loolu lay wóor yàlla def nag bi loolu amee kon nanu waxtaan ci diggante ba àddina àddina yett rek lañ fi gisoon mu ngi teewoo ko amatul yenteel taalibe yi ko topp te yaakaar ko te muy dëgg ci ñoom ci ma sa toogal wan na la ci boppam wan la ci sa digg yàlla wan la ci sa bopp lu tax bëggatoo di kenn benn bu bëgg di moroom moom ngir la mu la mu xam ci sëñ Tuubaa mu xamal ko ko ak la mu ko wan ak la mu ko dal bëggul di moroom loolu wóor nag boo xamante ne benn taalibe bëggatul di sa morom la mu la wan moom ba tax na bëggatoo di kenn kooku ko woon wane na ne liggéey ci taalibe yi moo doon wàllam ci li ci dalik mooy alxuraan alxuraan moom dafa wax ne yow mal xiyaama ci ku ne sa partitifu addina dañu koy indi jóor ko nit ak jinne malayka ñëpp gis ko ba ma xamee loola laa def alxuraan muy sama paggu téeb moom mi jóge ci yàlla dem ci yonent bi ci jënd loolu moo waral mu daa ko bind di ko jàngal dëkk bu mu mosane ci ci àddina kaamil bi bu ñu xëyee jàng ko yoon bu ma tëggee ñu jàng ko yoon su mu masa sañ ci loolu lañ fay def ba bi dem jee loolu du fa jóg tey jii Tuubaa ji juróom-ñaari jàkkaa ngi fi yoo xam ne jàkkaa bi ne bis bu ñu ne daañu fi jàng ñaari kaamil yu suba ak benn bu tisbaar dëkk bi de ma am téeméer rek waaye loolu jënd ko loolu kon won na leen ne moo séddoo alxuraan mel na it nag ne <coughs> séddoo ju mu séddoo am na la ko ci yàlla jox loo xam ne yaakaaruma ne jox na ko ñëpp bés toog ne fii benn taalib bi ci taalib bi xam na ku doon xamul santam xam dëkk ba mu dëkk bind ab kaamil wutal ko jëkkër ak mbokk ci malaadum seeg jox ko kenn lu ma sa gis nag mën na ngoo mën na ko ci loxoom lenn lu mu lu kaamil lu ko nit ma jox tegal foofu la lay wax nit sax ñëw jënd pañe bu guro jox ko ne ko loo ci jublu mu ne ko damay dégg ne bëgg nga guro mun na ko yóbbul daal di wër lu kër gi fu ñu guro nee nañ ko génne man di suma mandargaal ci bëgg dara dul yàlla yonent borom kaamil boobee dafa dafa tàllal kaamil bi sëñ bi téye ko ñaari loxoom ni ko ah yow sa kaamil bi wow na lool fa farixan tasakum ji ci sóoratul baqara rek nga fàttee sàdd wallaahi xasin bañ ci ubbee noonu la kon ngeen xam ne alxuraan la fi nekkaloon ci àddina ci des na muy tuubaa ji nag tuubaa moom juróom ñu jëlee ko ci biir si at yi ci ba mu ci waaye diir li muy nekk ci àll mu ñu ngi naan rabbi stajib waltu ko mil maana waytu rara tuuba la si bi katuna fii kabul yaana mi ngi wax yestati joo ngi di tuuba wax mi di wax ni asawara waltu tibli sama iskaana ku mu di fi fi la dëkkaloo su nga yaroo su nga jàngee fi la ñëpp ak dëkk xamal na ni leen mi moom lu jàmm du fi am kenn mënu ko fi indi ku fa moon ay doot ko fi indi ayut du la weesu loolu na leen wóor sëñ Tuubaa liggéey ni ko njëkk tey loolu man mën naa ko xam am naa ci firnde yu ma leer yàlla na yàlla saxal ci jamono ci sutural te mosul ñu ci dimbali ñu ci barke lépp alhamdulillahi alkarim silmilan ala sighali bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا